julli ci moom du rekki wax jëf ci mbiram mooy ji mu sax kon farlu leen ñu bokku fa jàpp ci gën gi Haashimi nan jëf ci mawlidin nabi mooy mbég ci laahu ni rabbu imaamu naa di sang bi salli alayhi salimi ku jug